fa atbaahu sheytaan fa kaana min algaawin yàlla nee na xoolal rek ki ma noppal dugal la ci lee ah tabaarakallaahu xew mi am na tey ngénte li am na mankat danaa ñëw seet si la fexeel ba sa wujju peccor gooy bum la man ci bul bul ñaaw ci xare bi bu ci ñaaw ah tabaarakallaahu man de am naa sama benn am na sama fukki junni de am naa sama benn xar mu baax mu ne déedéet nigal ma dem seet ñale dem set set set ñëw ne la kale de yëkk wama gis mu yew so so ko yobbo mbote xam yàq sa xol te kale amna jëkëram man na ay doomam man nañu yow amuloo manuloo te yàlla ne la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha yàlla ne li yunfiq du saatin min saati wa man qudira alayhi risqu fal yunfiq mimma mimma min baadi ma ataahu llah waaw yàlla ne li yunfiq du saatin min saati kenn ku nekk la nga man rek def ko man seen borom gis naa ne wàññante nekku ci te seen njariñ a ngi ci yéen ki mën a joxe ndawtal wala mën a joxe eh, waaw ndawtal wala mën a joxe jaxal ci fukki junni na ko joxe attan na ko mën na ko dara nekku ci waaye ki nga xam ne itam wóor na ko ne balaay joxe fukki junni dana leb fu nekk dana dem fu nekk la mu am bu mu ci ruus na xam ne gor la kam koy jëflanteel gor la mu ne ko ajja jamono ji de moo ma dab lii laa la mën a jox waaw kañ loolu lu ama am solo la waaye ku topp rythme bi ni muy doxee eh, dana doy waar heureusement nag eh, eh, li ñu naan sëb dugg na ci nopp jaar heureusement aji ami jon bu mu safiye yëg si léegi ndax mu dégg ci aji ami jon loolu moom da bokk ci ñu ci dimbali dimbali ñu bu baax ci wàllu xew yi ñu organiser waat ko yërëm yërëm nañu daal jigéen ñi ca dëgg-dëgg seen charge aji ami metti na diis na aja mbayeen seen charge metti na diis na loolu nag yéene seet nu ngeen ci waxtaane rek du tëb tëb sotti di waaye ndànk ndànk rek ku ko bëgg a dindi nag daañ la daañu la dëkkal néeg yoo dëkkul man de nangam laa ko joxoon da ngay gis kuy dem màkk ñëw tàggoo ka nga tàggu jox la ñaari junni soo ñëwee jox ko euh, tuuti euh, euh, zam-zam mu ne man de joxuma dara lu dul zam-zam joxuma dara lu dul lu dul lu dul benn kiwu cuuraay ah nga xam ne kon la nga doon def yàlla taxul su ko defee li may tëje suñu wax li may tëje sama wax suñu jëf yëpp nañ ko teg ci di def te yàlla tax di wax te yàlla tax di ànd te yàlla tax te itam réew mi nag ñu taxaw ci suñu kemtalaayal kàttan ci liggéey ci njub ci juboo ci bennoo ci digle lu baax ci tere lu bon fekk ñu koy seq ak ñu ñu mën a waxal suñu Issa Touré Touré Touré Touré Touré suñu Issa Touré Touré Touré Touré Touré Touré moo moom bés bi ci biir moo ko moom ci biti ndax taxawaayam ci diine ji taxawaayam ci tariqa bi àndam bu rafet bu sell ak wayjuram sëriñam Maolana Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh radiyallahu taala anhu ah, euh, lay sant bu baax a baax tabaarakallahu ni ñu sante woon sànq sa mag ju baax ji di suñu mag di Oustaz Khalifa Badiane dégg nañu kontaan nañu wala dëgg la dëgg jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf na yàgg jërëjëf loolu daal moo doon message bi nga xam ne bëggoon nañu mu jàll su ko defee itam ah, euh, mel na ne seen nañu jàkk fii jumaa ngi nii wala jàkk xaw ma lu ñu ci yéene ñu ngi koy tabax ku ko gis dana xam ne yeggagul su ko defee ñoom ajja busu ñoom ajja binta lépp loo xam ne daayira bi mën nañ ko génne ci seen kees donte le dafa nekk vingt mille francs wala vingt cinq mille francs ëpp naa xeeb su subaa ngeen dem ba ca ilimaan ja wala kilifa ya nga xam ne ñoo yor mbir liggéey ba won leen ne leen lii conférence bi ñu doon def di ci sant yàlla di ci bég moo tax ñu ñëw pour jox leen ko di leen ko di ko di ko def ci jumaa ji dëgg la yàgg ngeen a def mais defaat rek tabaarakallah yàlla masul ne def naa démb damay noppalu tey yàlla moom gis bu nekk mi ngi def kon boog yiw warul doggante feeg ñu di ko man xam naa ne yéen a ngi ci waaye waxtaan rek tabaarakallah su ko defee itam comme ni ma ko daan wax ci daayira yi rek léeg-léeg seen keesu daayira su demee ngeen làmb ko gis ci fukki junni wala ngeen gis ci ñaari fukki junni te ngeen mën ca jëlee lu ngeen wute ñaari saaku ceeb yu ndaw muy cent kilos ngeen seet benn benn yi nekk ci gox bi wala koñ bi ñi ñi seen loxo jotul seen ginnaaw ngeen def ko ay saaku euh, cinq kilos cinq kilos cinq kilos seet aja diw wala seet maam diw wala seet papa diw wala seet sëriñ daara diw dem waa daayira bi ñoo la dimbali kii te yàlla tax ndax ndimbal du tuuti mukk mukk mukk yooyu yëpp xeetu yiw la te yàlla wax ne ne wa ma tafalu min xayrin فلن تكفروه والله عديم بالمتقين يلا نينا وما تفعلوا لب لنين دف من خير تنجك من خير تيو بدي كو خير فلن تكفروه من سين بروم دي سانيو مالين كو ويدين سانيو مالين سولال سين جك والله يلا عليم بالمتقين واي ني ديف نك دي تي ورسما غيرم اه دا نا لين دنت لو خامني دي بس بو نيك سي بيب تبارك الله لولو ني بايكو خيل لي مي تيجي سوني واخ دال مودي دائره بي يال يالا دولي ساخال dolli ci barke dolli ci dëppoo dolli ci déggoo di sant bu baax a baax ajja mbayang la ak ñi mu àndal jóge tëngéej ñu ngi sant xajja ami jonn di suñu jigéen di suñu xarit ni ko mbayang nekk ak soxna bint ak mboolem ñi fi ñëw ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di bége ñu ngi leen di ña dolle ñaanal yàlla ñun ñëpp nañ bokk bàyyi yàlla xel di fàttaliku yàlla bu baax a baax a baax rawatina julli juróom ñu di ko toppatoo bu baax a baax a baax rawatina mbub mu ñuy jullee si rawatina soxna yu baax yi kenn ku nekk na nga am mbubb mu baax moo xam ñaar ba ñett wala ñaar yoo xam ne da koy def rek pour sa mbubbu julli boo xam ne daal bés boo bëggee julli nga sol ko tabaarakallahu euh, julli ci euh, ñi nga xam ne itam tabaarakallahu ay dañuy jàpp ay mbindaan ay ñu leen di liggéeyal ñu di leen bàyyiloo xel bu baax ci wàllu cet waaw da liggéey waaw ñaata ngay bindoo ñeenti junni wala juróomi junni ah kon baax na noo tudd jox ma sa carte mu jox la nga waaw dañ ko photocopier léegi li nga xam ne moom laa kon gannaaw suba wala suba na nga ñëw liggéey mu ñëw nga ne ko póot maa ngi na mag ñi daan def ba léegi ñu ngi koy def waaye ñu wax leen ko ndax xale yi xamuñu lu xew surtout mbindaan yi jógee fu nekk waaw yëre yi kat mi ngi nii waaye am na du ñàkk am ci yëre bu am sobe bu ko dugal rek ci ndox mi daal di indi eau de javel wala daal di indi omo nañ ko dalli nañ ko xayyu def ko ci ndox ba mu set ba mu set ba mu set ñu jukki ndax mën nga am mbubb mu takk sobe yow ku mag ki mën nga ànd ak sa soxna sa soxna mën na ànd ak borom këram am lu ci takk ci sobe wala sa soo amee parental wala xale bu tuuti yëreem yëreem mu saw ci yëreem loolu su ñu boolee lépp à la fois dugal ko dalli fote fete li fóot te jëkk ñu ko def ci ndox mu laab xayyu ko ba mu set ñu jukkiwaat soog a dugal dana set ci aada ngay julli rek fekk amuloo julli il faut que ñu bàyyi xel loolu ba ci ba ci lu metti la lu jafe la ba ci ñiy def affaire ñi nga xam seen yére nettoyage lañ koy yóbbu ak sec ndax yére georges nga fay dajel yére paul yére mouhamad bu sàggal ñu dugal ak seen machine à laver yi waaw mu jaxasoo jaxasoo mu ñëw set loolu rafet nga jullee ko te it nit jullit dafay bàyyi xel digganteem ak boromam bu baax a baax ba ci wàllu ferlu ba ci wàllu ferlu am na ñoo xam ne dañuy dem ci wan ak wa jonkan turu ndox daañ fa toog sax xëy na deux minutes wala lu ko jege jóg rek daal di di siw rek daal di dem jàpp déedéet soo tuuree ndox soo jonkane ba tuur ndox doon soo fa toogoon juróomi minute fukki minute soo jógee am lu génn kon boog soo tuuree ndox ba pare bu ko def rek daal di ferlu daal di jóg daf ay pas su dee sa biir toilette nga dox dox dox dox lu war a tollu deux minutes trois minutes mën nga dem sax léeg-léeg sa biir nekk soo soo yaatoo wala nga am chaise wala banque sa toilette toog ba pare jógaat su ko defee li des ci say vessu ci sa sa sidit dafay génn su ko defee nga mën a siw waaye bari na ñoo xam ne dañu dañu daldi tuur ndox jonkan bu baax a baax defe ne ferlu nañu ba mu jeex fekk jeexul soo jógee dox tuuti rek am lu génn lu mu tuuti tuuti loolu itam ñu bàyyi ko xel ndax sallallahu alayhi wa nee na bari am na ku dem safara dara yóbboo ko ci safara lu daawul ferlu ferlu bu mat am na ku dem safara dara yóbboo ko safara lu dul dafa daan dox rek ci diggante nit ñi di yàq ñooñu itam ñu bàyyi leen xel xam nga itam ci dëgg-dëgg ah tabaarakallahu jafe naa mucc nag waaye ñëw ah man de aja dama bëggoon waxtaane waaye yow neexuloo waxtaanal sax ma bàyyi daal nga ne waaye aja nga ne ah, yow neexuloo waxtaanal naa bàyyi feeg waxuloo ko da ngay bëgg a dee su la ko waxee ne la aja diw de nangam nangam wax nañu ci yow lii wax na ci yow lii fekk loolu amul aja diw nuyu la gis nga fay ko fay boo xam ne awul yoon moom itam tabaarakallaahu nit la mu ne man de dootuma ko jox loxo wala alaaji diw wala Saliou wax ko ci Maodo wala Maodo wax ko ci wala Saliou wax ko ci Ibrahima ainsi de suite yooyu yëpp dañ koy bàyyi xel Eh, te itam ñun ñëpp nañu jox yàlla suñu bopp su ko defee itam ñu ñaanal suñu kilifay diine kilifay lislaam bi nañ leen ñaanal bu baax a baax a baax a baax a baax waaw nit day ñaanal kilifaam tabarakallahu ñaanal suñuy imaam nañ ñaanal ñëpp rek nañ ñaanal ñëpp Sidi Mouhamadul Mansour xalif général de Tijane ñu di ko ñaanal bu baax a baax a baax a baax a baax démb rek maa ngi koy wax ca kër Cheikh Al Hadj Abdal bu ñu jullee timis ba pare Thierno Mountaga Tall ñu di ko ñaanal bu baax a baax a baax suñu wajur wala ci Touba Cheikh Salih Mbacke ñu di ko ñaanal bu baax a baax a baax te ku fi nekk dof nag bëgg fii indi affaire confrère affaire murit ak tijaan nañ ko ni ñukk te ñun dund suñu foi dund suñu unité waaw di wax lu baax di yéenante lu baax di jëf lu baax waaw bu ñu topp mu benn dof ba tojante fi ay bopp jaru ko Cheikh El Hadji Mouhamadul Mansour mu mag daan na wax ne àdduna tooñ fi xaju fi ñu tooñ la sax nga fayu xaju fi su ko defee kon yooyu yëpp ñu bàyyi ko xel jàmm jàmmoo bëggante dimbalante waaye nag fonk suñu tariqa bu baax nag fonk suñu tariqa bu baax a baax a baax fonk suñu awraat fonk suñu mbooloo wasifa fonk suñu géew wasifa soppante di dimbalante te yàlla tax ñu ñu seqal nag baatu laa ilaha illallah ñoom ñëpp suñuy mbokk lañu yéeneente jàmm yéeneente yiw ni ñuy ñaanal jàmm président Abdoulaye Wade di ko ñaanal gouvernement am noonu lañ koy ñaanale Moustapha Niass noonu lañ koy ñaanale Iba Der noonu lañ koy ñaanale Djiboka Landing Savané Abdoulaye li kilifa yi nga xam ne yëpp dañ fi nekk ay yore ay parti politique dañ leen di ñaanal tabaarakallah sañu ñu leen bàyyi mukk mukk mukk mukk il faut ñu di leen ñaanal tabaarakallahu yéen i jàmm nag waaye nag ñi nga xam ne tey ñoo yor réew mi ñu di leen ñaanal yàlla woyofal seen yan yàlla dimbali leen jaaxle gi nit ñi toll tey yàlla rek ko mën a dindi yàlla na leen ci yàlla dimbali dimbali ñu ci ba lépp loo xam ne jafe-jafe la yàlla mi mën a jàppandal yàlla na jàppandal lépp yàlla mi mën a yombal yàlla na yombal lépp kaddu lislaam nag yàlla ko yàlla gën a dëgëral waaw kaddu lislaam yàlla na ko yàlla gën a dëgëral te ñu bay te ñu bañ a jaay suñu ngor ñu bañ a jaay suñu diine tabaarakallaahu diine tedd na ba pare yàlla mën na boppam ba pare kon boo képp koo xam ne dafa ñuy jege-jegelu ngir kooj suñu diine wala kooj suñu ngor walla kooj dara ci suñu diggante suñu borom buñ ko nangu tabaarakallaahu xale yu jigéen itam ñu di ñu dimbali dimbali seen bopp xam ne moomuñu seen bopp nit ki ñetti par force yi le feeg mu nekkul ci loxoom war na bàyyi yàlla xel bés bi ngay judd par force nga ñëw ci àdduna kenn mënu ci dara diir bi ngay dudd ci àdduna diir bi nga ciy dund benn at lay doon ñaari at fanweeri at juróom fukki at juróom benn fukki at téeméeri par force nga dund ko bés bi nga waree génn àdduna par force nga génn àdduna kenn mënu ci dara kon boobu diggante boobu ku ci nekk ci ndawe daa dem ba defe ne lu bari yaa ko may sa bopp wala yaa ko moom ba mu tax nga doxe nenn wala nga jëfe nenn loolu itam ñu bàyyi ci xel xale yi kon nañ bàyyi xel colin yi col yi bon na lool pantalon yu seere lool yëre yu seere lool jumbax awut yu bari lool tabaarakallah jëmul kër te jigéen valeuru jigéen moo di kersa waaw valeuru jigéen dañuy wax ne sëy bareetul sëy bareetul dëgg la ah sëy kët ki nga war a bëgg dafa war jafe mais su fekkee dafa yomb nekk ñu di ko feccin bu bees wu nekk ñu génne ko fecc kes sa amatul xale yi tuut ñooy fecc seen kanamu way jur léegi te bu njëkk pour nga fecc daa tëj daa tëju na nga daan tëju fecc ba ñaq ab paat sooga ubbi euh, ñu nelaw ne yaay maa ngi woon dama doon nelaw waaye léegi ci kanamu papa yaay ngay fecc ñu ñu tàcc la yooyu yëpp yooyu yëpp dafa am ñoo xam ne ñoo nekk rek pour yàq suñu jikko tabarakallah loolu ñu bàyyi ko xel wàllu sécurité bi itam ñu ngi ñaan yàlla yàlla jàppale ministre de l'intérieur jàppale gouvernement bi ba liñ ci yéene yàlla defal leen ko vraiment ino bi bi bi dem ino la xaw ma xaw ma ana moom mi dem ak euh, keneen bi nu mu tudd Alex ak ñeneen ak ñeneen ñu bàyyi leen xel waaye bari na ay ino ki Alex yu nekk ci biir kër yi jàpp ñu leen te ñoo gën a dangereux ñëpp wàllu sécurité bi il faut que ñu bàyyi ci xel yàlla xam nga lu mu wax ci ñoom ino ak Alex xaddul xiraaba yàlla nee na lenn ñooñu suñu ñi nga xam ne ay terreur lañu ay agresseur lañu yore arme ni bëggu gudd ñuy attaquer nit ñi di arracher ceenu jigéen ñi di jël seen alal léeg-léeg ñu jël alal rey alquran lu texte yu leer la indi inna alladina yuharibuna allaha wa rasuluhu an yuqatta'u aw yusallabu aw tuqattaa aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min rabb waaw innama jazaau alladina yuxaaribuna allaha wa rasulahu an yuqattalu aw yusallabu aw tuqattaa aydihim wa arjuluhum min xilaaf aw yunfaw min al ard yàlla nee na atte bi ma dawal ci ino ak alex ak képp ku mel ne ñoom di agresseur di terreur di koo xam ne dangay ngay jël alalu nit di dal seen kaw di leen rey li ma dara li ma dawal seen kaw moo di ñu re ñu ñu ñu rey leen wala ñu pendre leen wala ñu dagg sa loxo ndeyjoor teg ci sa tànku tànku càmmoñ beneen yoon ñu dagg tànku ndeyjoor bi teg sa loxo sa loxo càmmoñ aw yun fa wala wala ñu dàqale ne leen dootu leen séjour am am séjour fii droit de séjour fii ci Sénégal territoire bi da ngeen koy génn aw yun faw min al ard yàlla nee na loolu gàcce la gu leen di dal fi àdduna waaye àllaaxira fépp tuubuñu safaraan leen di xaar illa alladina taabu min qabli an taqdiru alayhim lu dul ña nga xam ne rendre nañu jéggalu réccu désarmé wu jox leen armi ñu yoroon tuub te muy dëgg ci ñoom loolu ñoo ñoom bu leen bu leen bu leen doxal sanction bi seen kaw lii la yàlla wax waaye kuñ fi jàpp ñaari yoon ñetti yoon benn weer ñaari weer ñetti yoon nga génn dem nañu ba am ay complice ci biir prison bi xaw ma négligence la xaw ma complicité la mais lu am la yooyu il faut ñu bàyyi ci xel agresseur ñu ngi rey nit ñi te itam il faut que ñu veille ci suñuy frontière liy dugg ci arme ci Sénégal kenn xamul nu mu toll ñu naan intégration économique intégration africaine yooyu coow la ay termes la yoo xam dañ koy utiliser ba tax na saxaar gi jóge Bamako kenn du ko contrôler day ñëw rek ñuy indi rek Guinée yi ñoom seen oto yi la ñu yeb ba mu fees te bari na agression yi am fi étranger yi la waaw su fekkee ne cent la mën nañu ne vingt yi ñooy Sénégal waaye quatre vingt yëpp ay ay ay étranger lañu Ghanéen yaa ngi fi Libérien yaa ngi fi bon Charles Taylor bi nga xam ne moo nekkoon Libéria eh, am na ñoo xam ne ay missionnaires yoo xam ne bañ fa jógee rek fii la ñu ñëw dorog bi dorog bi dorog bi na ci kilifa yi bokk génn bari na ñu naan dorog bi fekk kilifa ay patron ñoo ko fi dugal ci réew mi waaw yor seen Mercedes yu rafet rek nag waaw waaw Mercedes yu rafet lool lool lool lool lool waaw te te te te il faut il faut loolu loolu ñu dimbali ñu ci waaw ba tax itam euh, il faut am mesure yu sévère yoo xam ne il faut état bi jël ko pour assainissement moral bi ñu bëgg ci réew mi il faut que mu xaw metti nag foog mu xaw metti waaye loolu mënu la ñàkk loolu daal moo doon kàddu yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp rawatina jigéen ñi jigéen ñi jër a ngeen jëf jigéen ñi jërë ngeen jëf jigéen ñi jër a ngeen jëf kenn gënu leen waaw yàlla dogal loolu la la la yàlla cërale surtout na Xadija mu uuf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi fajri daawa al islamiyya ba tey mbaax googu yéen a ngi ko saytu xol bu laab xol bu yiw tabe nangoo ñàkk te seen te seen te seen xarit jariñu dafa am som benn xarit mu ne ma Maodo yow da amul bopp ma ne ko la mu ne ma da ngay fexe ay xarit yu jigéen ah, ma ne ko waaw loolu lu ko waral mu ne ma ñoo fii faj soxla ma ne ko nga mu ne ma waaw waaw ma ne ko ndax man ñi ma sopp di ni ñu bare mu ne ma baax na té leen nag ma ne nag man dañ ma koy wax naan sëriñ bi sopp mu ne ma nag da ngay fexe ba xam leen mu ne ma laa ngi lay xamal benn solo mu ne ma gis nga soo demee ba jaaxle ci xat-xatu jamono ñoo la mën a dimbali ñoo am mbaax bu toll ne tay la seen lam jaay seen alal jox la ko te yàlla tax ba nga man delloo delloo waaye mu ne góor goo xam ne day tooyu naan la yow rek laa yaakaar ma sa muqaddam laa jox sa ngir lijaasa bi soo ko joxee léeg-léeg nga tawat soxla euh, dix mille francs fekk mi ngi deux cent mille francs mu ne sëñ jamono bi dafa ow lool wallahi waaye soo waaye su ko jigéen xamoon ci sa jigéen ñi koo xam ne sa jigéen la ngay càmmiñam te ngeen seq yiw ak mbaax ak njub tabaarakallaahu fa mu lay jaarale ba faj sa soxla yàlla rek ko xam ma ne ko man kat sëriñ bi dinaa wuti ay ay ay jigéen kon tabaarakallaahu e ndax yàlla ak seen mbaax rek kon boog teraanga jooju yàlla na ko yàlla saxal seen loxo ci wàllu coordination de daayira tijaan alaaji Assane Diop tabaarakallaahu Assane Diouf ak alaaji Mbay Diop Sali du benn du ñaar toog naa fekk seen waxtaan ak góor gi toog naa fekk seen waxtaan Sidi Abdoulaye al ibnu ba ci Sidi Abdoulaye al ibnu muy sant jigéen ñi di leen gërëm Abbas Sidi Mouhamadul Mansour appréciation yi muy def ci jigéen ñi yéen ñëpp dégg ngeen ko ba tax na tabarakallahu ñu leen di ñaanal bu baax a baax yàlla dolli seen teranga yàlla dolli seen njekk yàlla dolli leen wér yàlla dolli leen kàttan lépp lu ngeen jéem ci lu baax te lu baax la ngeen jéem yàlla na ngeen ko mën tabarakallahu euh, ñun de xam nañu seen taxawaay defe naa képp kuy président daayira bu góor xam na taxawaayu jigéen ñi fépp fu ñu teele yàlla ci jàkk yi wala jumaa yi xam nañu taxawaayu jigéen ñi fépp fu parti politique taxawee di def meeting xam na taxawaayu jigéen ñi waaw kon boog loolu taxawaay la boo xam ne yàlla seede na ko yonent bi seede na ko kon boog yàlla na ngeen ko yàgg taxawee diine ji yàgge ko taxawe tariqa bi yàgge ko taxawe bépp këru diine bu ngeen yaakaar aju fa di fa yaakaar yàlla te yàlla tax eh, yàlla na yàlla association islamique yi ci réew mi tabaarakallaahu yàlla na yàlla doole barkeel seen liggéey tabaarakallaahu association yi itam ci cadre boobu ñu ngi liggéey liggéey yu ama am solo ñoom ñëpp itam tabaarakallaahu ñu ngi leen di sant waaw tabaarakallaahu gis-gis bu leer gis-gis bu yaatu rek moo am solo jàmm rek am solo yaatalante rek moo am solo kenn ku nekk nga respecté sa conception morom fekk nag muy tegu ci njub fekk muy tegu ci mbaax waaw man man man ta du ma jël benn tariqa libre nga waaye musalal ñu jël tariqa man gën man tariqa laa gëm di wéy sama sëriñ dëgg la waaye musalal ki jëlul tariqa bu kenn dëkkal sa morom néeg yu mu dëkkul waaw tabarakallah ndax kat kenn du dugg ci bàmmeel ñu ne la ban tariqa nga bokk sa diine lañ lay laaj sa lislaam julli juróom ak la ca topp damay wax toujours ne itam ka ca nekk ca HLM marché HLM xëyul mukk ubbi kantinam di xaar murit wala tijaan wala xaadir moom ki muy xaar ci ubbi kantinam ci six heures du matin ci huit moom ki muy xaar mooy ku bëgg su ko jiqee ci murit mu sant yàlla su dee ab tijaan mu sant yàlla su dee koo xam ne sax du jullit tey dem ci église ba mu mu sant yàlla moom daal boroom njëg lu bëgg lay xaar kon boog jant bi ni mu fenke tiim murit ak tijaan ak jullit ak kudul jullit ci mbaaxu yàlla ceeb bi ñun ñëpp ñu bokk ko ndox mi ñun ñëpp ñu bokk ko li fi yiw di leer ak di mbaax noonu lañ ko mën a bokke tabaarakallahu képp ku toll ci jàng yal na yàlla barkeel sa njàng képp ku toll ci liggéey yal na yàlla barkeel sa liggéey tabarakallahu kilifa yi nga xam ne itam wala ressortissant yi nga xam ne ñu ngi bitim réew itam yal na yàlla doole barkeel seen liggéey baax nañu fi de moodu moodu yi baax nañ fi lool yàlla xam na ko fi lool ndax itam bari na lool fu ñu féete mi politique bu bes bi nga xamne itam gouvernement bi mi ngi koy tëral ba am sax ñum ci wo am rencontre bu mu am ak ñom pour gën leena a gën leena jappali ci walu visa ci walu séjour bo xamne dañ ko am bu ànd ak jàmm ci réew yi nga xamne fa la nekk di liggéey muy Europe muy Amérique muy asi muy fu soob yàlla la ñu tëral yàlla na leen ci yàlla jàppale tabaarakallahu sëñ Aïssa Touré jërëjëf Pape Khalifa jërëjëf tabaarak imam lam jërëjëf ñu ngi sant ñëpp ustad Alioune si sama doomu bàjjen sama doomu bàyyi moom dañu bokk ci wàll yëpp ustad Alioune maa ngi lay soo gis ñu ngi lay ziyaara bu baax a baax di la gërëm bu baax a baax Oustaz Hadj Malick kontaan nañu baax a baax Hadj ma Seck loolu moo doon kàddu yi ñu ngi sant di gërëm di ñaan yàlla tabaarakallahu ñu ngi leen di jottali نيو سيد محمد المنصور الخليفة نجي جاتلي نيو سيد عبد العزيز سي وشيخ الخليفة نجي جاتلي نيو سيد أبو بكر محمد المنصور نجي جاتلي نيو جابر شيخ الحاج مالك جيب كشيخ الحاج مالك يالنا في يالنا دول جام يالنا في يالنا دول ديغو يالنا في يالنا دول جبو لب لو خمني نيانو شيخ الحاج عبد العزيز لون دوغو سي نيانو سيد أبو بكر سيبا إلاج منصور نيوم نيانو سين نيان دوغو سي نيان شيخ الحاج مالك يالنا كو يالنا نانغو ci njaboot gi nangu ko ci jullit yi ilahi yafajal ahlana ahla ghurbatin wa ahla tibai sunnati tarahum joju yàlla nako yàlla dolle nangu hada wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi taala ñu ngi sant itam suñu mbokk me di sàll tabarakallah mom fu xew amé ci walu kër gi ma nga fa di ko couvrir tabarakallah ci walu enregistrement ñu ngi sant di gërëme bab abdul aziz ñang tabarakallah mi ngi ni tok mo yore caméra bi sank ba légui bab abdul itam ñu ngi lay sant di la ñaanal yàlla di ñaanal mboole mbokk yi nga xam ne itam participer nañu ci euh, daje bi muy ñoom ngi fi jot a tudd sànq Cheikh tudd leen ci ndigalu soxna Binta Bousso aja Binta aja Binta ñu ngi lay sant bu baax a baax ñu ngi lay gërëm bu baax a baax wóor na ma ne nag am na per yoo xëcc xaw ma ban per la na waaye moom ndax man maa ngi moom xamante nañu bon ndax tabarakallah papaam daf ko soppoon loolu bëgg ko te am na yu mu ko jox ci lenn ci tur man wóor na ma man wóor na ma tabaraka tax na ñu ngi lay sant soxna Binta bu a baax taxawaay yi rafet na mat na ñu ngi ko seqal itam jàppale na ñu ni nga leen jàppale rawatina daayir yi nga xam ne ñëpp wuy si nañ la ñooñu la wuy si yàlla na leen yàlla wuyoo noonu ci seen bëgg-bëgg ak seen ñaan aji am yi jërëjëf kontaan nañu wax jot naa sama kàddu maa ngi lay bëggee di la sant di ñaan yàlla itam lépp luy sa càkkutéef ci sa digganteeg sa borom yàlla na la ko yàlla defal te ñun ñëpp yàlla boole ñu may xel mu dal dund gu tey hmm, hmm. Hmm. sama jigéen sama di sama rakk di sama lépp di aji ami joom na dafa yónnee ndaw ci man ne daaira safiya ba mu yore fale jiite ko am na beneen daaira boo xam ne xale yi ndaw yi ñoo ko sos ñu ngi ñaan ñoom itam yàlla jàppale leen ci bu baax a baax a baax yàlla sàmm ñëpp te wattu ñëpp te lépp luy suñu bëgg-bëgg yàlla nañu ko yàlla defal te di yital ca ngëm gu ngëm gu mat sëkk woolu yàlla gu mat sëkk tabaarakallahu lépp luy kooc suñu suñu ngëm suñu digganteeg suñu borom yàlla nañu ci dimbal balaa ñuy dajeeg suñu borom daal yàlla nañu yàlla may tawxidan xaalisan waaw mu wóor ñu ne daal luy yiw daal ci yàlla la bàyyi ko luy safaan ci yàlla la bàyyi ko waaye nag yàlla may nañu xel ne ñu dee leen foog tey wattu te di ma ñaan waaw loolu moom cadre boobu yàlla nañ ca taxaw rek junniy juróom ñu saxal ko bu baax a baax sàmm bu baax a baax di wax lu ñu war a wax di jëf lu ñu war a jëf surtout jaxasoo góor ñeeg jigéen ñi lu ñu mën a moytu nañ ko moytu lu ñu ko mën nañ ko def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma taraktu shay'an min ba'di akhwafa ala nisa'i ummati min rijaliha nee nag man yonent man muhammad mooy wax de bàyyiwuma lu ma gën a tiital sama ginnaaw lu dal lu raw diggante góor ñeeg jigéen ñi ba tax na tabarakallahu nañ ci tàmmoon teg sunna bu baax rek sa jabaru xarit bul kaf bul cokkaas yiwul ana ajja ana saawaay waaye yokkal añ bu ñu añ ana ajja dugg ba ca biir néeg ba yonent bi nee na ku ko def seetaatal sa xol xarit yeggul foofu kon boog kenn ku nekk ni nga bëgg ku jëflante ak sa soxna jëflante koog sa njaboot dee ko jëflante ak soxna keneen dama ñëw di seet alaaji nekku fi naa toog ci salle ba te bu ma dugg ak ubbi buntu waxtaan ak soxnaam dem ba yegg fenn si yiwul baaxul soxna si itam sa jëkkër ngay séyal xaritam bu mu xam loo nekk ak sa jëkkër na yem fa mu war a yem waaw tabaarakallah yooyu yépp ci ci diine ju rafet la bokk ci diine ju rafet la bokk ba tax na ndax am na góor ñoo xam ne jigéen dafa yàlla ñu ci bari di yàlla def leen binde teraanga ak mbaar dangay gis góor teral ko benn yoon teral ko rey rek mu ne daf ma bëgg daal di bëgg a dugal kàddu saaxaan moo tax léeg-léeg góor léeg-léeg ñu gàcce léeg-léeg gàcce gàcce juddoo ci waaw léeg-léeg juddoo ci ba tax na euh, faiblesse baaxul ndegam jabaru yonent bi la yàllay wax saxaaba yi nañ xam fu ñu yem ci ñoom tax taxdaana bil qawm فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قلنا وقلنا قولا معروفا نجم جبر يننت بلا يال دوك اتانسيون سو ген دي واخ اي غور منو لا نياك نا ген واخ واخ بو غات تاي فرات تاي يمت ولا تخدعنا بالخوف بولين لوغ لوغال واخوما لا تابنت باسو نينا فيطمع دا دالي بوغ خمم تا شيطان يكو وارال تي خولو كو غور الذي كان خامني في قلبه نك نتي بير خول با مرضون feebaru seytaane bu ko man moo tax jaxasoo góor ak jigéen su mën na lu ñàkk ci cadre bu ñu ko war a teg ci cadre ko war a teg dara gënul ñaaw tooñ yàlla ci sa diggante ko dencul te yonent bi saasal nee na bi gën a garaaw bi gën a garaaw bi gën a garaaw moo di tooñ sa dëkkaale ci biir këram tooñ sa dëkkaale ak ci biir këram benn ku góor ki provoqué jigéen ki wala jigéen ki provoqué ku góor ki jigéen dafa yiw jigéen dafa sell jigéen dafa noble waaye léegi yooyu kenn waxatu ko tàppante paso xale yi moom beneen affaire la te itam euh, tabaar ñun duñu ay sauvage ay nit lañu wala xat karram naa bani aadam moo tax euh, yooyu la yépp dañ ci bàyyi xel xam nga dara gënul dara gënul ñaaw jigéen ñu baax ñi yiw naan dañuy seeti sëtu alaaji Maalik bu ñuy wax Maodo si Maodo ñëw war a wax ak nit ñi ci yiw war a wax ak ñoom ci mbaax waaye ci biir wax bi mu ngi jéem a xool ku rafet di xool ba fàtte temam te day dal ay nit wala nit nii la nga nga nga cokkaas ko nga xoos diggu baaraamam di dugg loxoom yooyu yépp ngi am nit ku baax jullit lañu seenu mu war a nekk ku baax sëriñ beeg taalibe beeg notable beeg chef de service beeg ñépp la yàlla ne nañ jub lii nag il faut ñu di ko waxtaane man la ñàkk kuy génn na nga xam nooy génne kuy wax na nga xam nooy waxee waaw ndax am na ñoo xam ne maladie mu nekk seen xol ndax nit su demee ba nga xam ne rusatul ragalatul lu ko neex def te yonent bi nee na li kulli diinin xuluq wa xuluqul islaami alxayaa yonent bi nee na diine ju nekk am na lu ko lu ko lu koy caractériser ba ba ba ba nit ki man ko ci xame nee na nag li nga xam ne moom la ñuy xàmmee diine lislaam moo di kersa moo tax yonent bi ne ida lam tastaxi fasna ma chita saa yoo demee ba amatoo kersa lu na neex melal lu neex defal te yonent bi saa sallam nee na yàllaa ngi mere yàllaa ngi mere ku ñu naan Maodo si wala ku ku mën a doon rek wax ci nit ñu ne iskay waaye soo wéetee foo xam ne mën nga fa mooy yàlla maam sëriñ njegewu la ma sàmba gisu la rek nga nga tàbbal fa loo bëgg a def nee yàlla mere na nee na kooku de yàlla mere na ko ba tax na yooyu il faut ñu di ko bàyyi xel yiw yi nañ ko seq wax ju yiw yi nañ ko seq waaye sàmmonteeg limitu yàlla yi xududullah ñu sàmmonteeg moom tabarakallah hada wa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatu من ماذا خليفة وي إن المال الفمي من مزايا الفاوين من المعنى إلى تحمي من مزايا يا ويمانا إلى جرج فمي من مزايا الفاوين المعنى إلى تحمي من مزايا جفمين ماذا يا نخطا وإنما نعم. نائلة تعمي نعم. من المسايا يوم نائلة جرجفمين من المسايا خليفة وإنما نائلة تعمي من المسايا وإنما نائلة نوب جمبل